waa Sénégal yi ngeen di ziar bu baax a baax comme ni ngeen déggee noonu grâce Afia wax ko rek nee jour bi clip bi génnee tamit dana ko teg sama loxo ñu jàlle ko au niveau de seen seenu télévision Bëgg Ndongo TV international la seen autrement incha allah dañu ko teg foofu affaire law ba faw grâce Afia nag dafa génnee new single single bu bees a bees grâce Afia jóge Sénégal dem ba Italie def single bi incha allah tamit euh, tournage clip bi mu ngi ci yoon bi muy ñëwagul mais comme ni ñu ko waxee noonu ci rek bu ñëwee inshallah drama ma yónnee clip bi ma jàlle ko bëgg na TV international affaire yi law ba faw mais dinañ di ñamal nag pour ci son bi rek pour leen ñamal son yi ngeen dégg la gal so ci affaire yi dëgg leen lii kay réew ko fi julli Warga Santa sant xaadim rasool dëgg la góor gi borom ba dëgg la ba am cër ci rasool la de njabootu ma sa am dëgg la na ko rasool moo jaaxal

mbokk yi tamit dañ koy dagg foofu di wax tamit ndeysaan son son baa ngi noonu xam naa du yàgg dara grâce indi clip bi incha allah clip bi nag su ko indee moom daa ko def Bëgg Ndongo TV international ñëpp di ko enjoy ñëpp am clip bi incha allah parce que lii dafa jëlaat xiin yi ak euh, tamit beneen facetu tëgginu Baye Fall ndeysaan introduire ko dem ba au niveau de international fële ca Italie def son bi waaw galas nag à l'instant tamit mu ngi ci son mu ngi ci liggéeyu clip bi daal clip bi xam naa du yàgg dara dina ñëw mais kon dañuy àndandoo rek dégluwaat grâce à Afia mu joxe mot de la fin am waaw ñu tàggatoo incha allah xaarandi clip bi du yàgg dara dina ñëw kon grâce à Afia bisimilah. di jóge ñëpp di ñaanal ñëpp TV international. maa ngi koy siyaare di ko wax ne incha allah kontaan nañ ci moom gis nañ ñu taxawoo ñëpp càq seet artiste yi si biir Diop ñëpp mën nañ ma seet ba mu noonu ñëpp la teg loxo incha allah wàññi leen ak Galas Abi Galas Abi Momo le Père li ñu wax ak affaire bi day wax parce que génn incha allah ci loxo bëgg noonu la ñu teg Momo le Père. yàlla naa affaire bi la ko xool yàlla ko